Bonjour, je m'en vais vous faire lecture du communiqué numéro de la Santé et sociale de ce juin 2020 qui fait état des résultats examens virologiques suivants. Sur 956 tests réalisés, 112 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,7%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 99 cas contacts suivis par nos services, 13 cas issus de la transmission communautaire est répartie ainsi. Colobane 2, Rufisque 2, Touba 2, Cité Cyprès 1, Dalifort 1, Kermassar 1, Kaulach 1, Mbao 1, Nord et Plateau 1. 50 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 27 cas graves sont pris dans les services de réanimation. Trois nouveaux à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce dimanche 28 juin 2020. l'état de santé des autres patients reste stable. À ce jour, 6 698 cas ont été déclarés positifs, dont 4 341 guéris, 108 décédés et donc 2248 sous traitement. Le ministère de la Santé et sociale exhorte populations au respect strict des mesures individuelles et collectives. asalaamualeykum maa ngi leen yottali communiqué bi bàyyeekoo ci ministère de la santé et de l'action sociale tey bésu altine ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin mi ñu nekk ministère jot na résultat yi may waaj lim. ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn test yi ñu def téeméer ak fukk ak ñaar ñoo ci positif juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent cas ñu jaxasa woon ak doomu jàngoro bi ñoo ci positif ak fukk ak ñett cas communautaire ñi may waaj a lim nii Colobane am na ci ñaar Rufisque am na ñaar Touba am na ñaar Cité Cyprès am na benn dalifor benn kërmasaar benn Kaolack benn Mbao benn Nord benn Plateau benn juróom fukk si ñu hospitalisé woon wér nañu bësu tey ñaar fukk ak juróom-ñaari cas ñu sonn ñu ngi ci service réanimation hôpital yi ñett malade ñàkk nañu seeni bakkan ci bésu démb dimanche ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci bës bu njëkk bi cas yi commencé ci senegal jot nañu wàññi fii juróom benn junni ak juróom benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñetti cas ñi nga xam ne jot nañu doomu jàngoro yi ñeenti junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak benn wér nañ si téeméer ak juróom-ñett jot nañu ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaan askan bi mu leen di woo ñu gën a sàmmante ak digle yi ñu joxe wasalaam.